kaddu yoo xam ne kaddu ndigal la yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci sëriñ bi di ko ñaana mu yàgg fi lool te ànd gër muy kàddu yu mu yëkkati jëme ko ci ganam gi nga xam ne ca dogalu suñu borom moom la yàlla def tey mu jiite réewum Sénégal di président de la république Bassirou Diomaye Faye kon sëriñ bi nee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 ba ngeen ba nga toogee rek ñëw fi dénk ko sa bopp tam xam ne dëggu na ci yow nee na boobu la la ko téyel te fas na la uuf jàppale la ba li nga xam ne yaakaar ji nga xam ne réew mi am na ko yàlla mottali ko ndax yàlla suñ borom moom du juum mu def rek moo tax moo xam la tax mu def ko macha an takrahu shay'an huwa khayrun wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al lahu fihi xayran kasiran kon nag nee na mi ngi lay ñaanal jiite gi nga jiite réew mi te bi ñu fi ñëwee keroog ñëwaat fi tey lépp daje naa ko taw loolu nag kon mel na ne mandarga mu rafet la te borom bis bi mu bàyyi koo jeewal di wuy ji gouverneur ca ndar ci biir yoon wi naa tawte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 nga xam ne gépp xéewal goo xam yàlla la ko jox cantu jëf nag mooy i'malu aala Daawuda shukran waaye déggale suñ boom teg wa xaliilun min ibaadiya shakuur kon bis bii bis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég na ko ci ñëpp santale yàlla moo ko njëkk a defal boppam ba yàlla def bis bi ak si fii tey ba daaw ci xayma cinq millions huit cent wax ne ne dugg na fi buñ ko bàll léegi ci dëkk bi te at jot day yokk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 jëme ko ci bokk julli yi ak bokk taal bi ndax màggal gi ñëpp a ñëw léegi mooy ñu xam ne safoor si lay waxal nañ gën a dal ak ndànk ndax daaw lu ëpp ñaar fukki nit teg nangam faatu nañ ci accident loolu bari kon nit ñi nañ ànd ak dal te xam ne la xadis boo waxoon rek fattaqullaha wajmilu fi talab li anna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 bañ am benn gàllankoor fekkaat fa sëñ njaboot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fii tànk kon gis ngeen ko xalif baa ngi noonu di ñaanal euh, président de la république euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mu ngi nii di ko ñaanal amin Mbacke ñu ñëpp wax amin xalif baa ngi nii Serigne Mountakha Bassirou Mbacke Euh, ñu amin mu ngi ñaanal président ak délégation bi yëpp ci teewaayu Cheikh